national man ca ña ko doon xex ca la bok dama baye Touba la joge lépp fomb sama lepp man so ñëw ma damaa ñëw ànd ak seigne Assane Mbacke and ak suñu équipe ne ci terrain bi li mom bu jalle bu kenn takati jabar ko am ak fer takal bu kenn takati jabar xamne bu dee takku fer yalla na jigen duñ fi takkalooti ay fer lankal yow may jëkëram tok sa bir kër ni ragal ma ci Sall yow la wara takku fer barke Seexul Xaddim bu luy jàllee ñun ñëpp nañ jëkkul doon ay jàmm sant sall da ngeen jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewloo ci seen bii di naraktu yi dal leen ak euh, jàmm kàddu yi Serigne Moustapha Diop Lambaye yu mu yëkkati ci ne rek bu fekkee ne daal dinañuy nangu bëgg-bëggu njiit réew mi la mu daal di am fii ci réewum Sénégal bayaboon rek ñun ñëpp ñu daal di dem daal di sant sall ndaxte rek ak noteel moom day wéy di am fii ci réewum Sénégal kàddu yu ni mel naka la dal di yëkkati gannaaw ba nga xamee ne moom jiitu réew mi la dal dina yëkkati ay kaddu xamle ne rek yile élection moom dañu koy rendal lu ni mel nag mu daal di xamle bu fekkee ne am na rek bayabunt rek ñu daal di sant Sall xam ne réew mi la nag ak noteel moom day wéy di fi am moom jiitu réew mi nag jamono jile bëgg-bëggam ak yéeneem mooy rek daal di rendal yile élection jamono ji nag askan wi ànduñu ci ak moom benn yoon loolee waral jamono jile askan wi daal di wàcce ci mbedd mi di naqarlu ak jéebaane lu ni mel ne lu ni mel nag ànduñu ci kii di njiitu réew mi Macky Sall donte askan wi nag ànduñu ceeg moom moom njiit réew mi la ma ngay forcé ngir nag daal di amal bëgg-bëggam loolee waral jamono jile askan wi nag wàcc ci mbedd mi di boyal akatar ne rek loolee nga xam ne moom jiitu réew mi la bëgg na ko na ci daal di dellu ginnaaw waaye nag ba léegi jamono jile moom jiitu réew mi ma nga téye foofee nga xam ne rek fa la téye ngir nag ne yile élection moom dañu koy dàq ba jëmmi jamono te ba léegi nag kenn xamagul yile élection kañ lañu ko nara amal fii ci réewum Sénégal la ba léegi askan wi ñu ngi wéy di mer di wàcc ci mbedd mi di wane seenu naqar ne ci di njiitu réew mi Macky Sall la nga xam ne nag dina koy bëgg na ca daal di dellu gannaaw ngir yile élection daal di am ci anam ya nga xam ne moom la ñu daal di ko jàpp.